kàddu xam ne kàddu dëgg la waaye dafa am kum walaabul am kum walaabulut walaabulut ci Pape Sinaan mu naan Cheikh Baye di Cheikh Baraam na la lii defal na la laa defal na la laa buy dëgg walaabulut ci Pape Sinaan ci Cheikh Baye la walaabul waaye su fekkee Cheikh Baraam defal na la dara lam la defaloon yëpp yaa ngi koy jéem fay ci Cheikh Baye ñu ngi lay nuyu di nuyu Cheikh Misri mi nga xam ne anfaqa min qablil fathi balaa làmp yee leer balaa baas bi am piis la daan xëttaal wi di fi ñëw Cheikh sëriñ bi moom aaye woon ne ma sëtu bàyyi kenn du ko wax sama xarit yu bàyyi sa sëriñ ku doy waar la dama ne ko sama benn xarit setu bàyyi mooy may daayira mu ne cim yar naa leen ba tey mu nga leen a yaru sëtu bàyyi kenn du ko wax sama xarit déglul li may wax a ngi nii di ñëw may wax sama xel ne Cheikh Abdou Bara maa bëgg bàyyi ñeex rek yow yàlla am xarit setu bàyyi du am xarit sama xel mi dama ko parce su ma ko laajoon ne ko wattaxasallahu Ibrahima xalilan xam naa xam-xam génn mu ne ma waaw kay waaye xam nga Ibrahima waxut ne moom jàpp na yàlla xarit waaye yàlla wax ne jàpp naa Ibrahima xarit <laughs> mu ne ma kon sëtu bi am na droit ne diw sàngam sama xarit la waaye taalibe bi ci suuf amul droit ne sëtu bi sama xarit la su duutoon loolu konoon danañ wax ne soo Mamadul Misri suñu xarit la ñu ngi koy nuyu di nuyu Cheikh Mamadul Makki Niass di nga xam ne ñoo ànd ak sëriñ bi Cheikh Ibrahima Fall di nuyu Cheikh Haadi di nuyu suñu mboolem yaay yi nga xam ne ñoo toog. di jégalu nag ci def Fayda Saada tegaloon nañ ko toogu man maa génnoon di dem di seeti ñi ànd ak sëriñ bi balaa maa ñëw am ku ñëw toog ci toogu ba te nit ñi am na ñoo xam ne meluñ ni man ci ñàkk kersa rus na koo wax ne ko fii dafa am kuñ ko tegal looloo tax mu toog fële waaye tegaloon nañ ko toogu loolu day baax ñu jégalu ci wax ko nit ñi xam ne noonu la demee ñu ngi ciy jégalu bu baax balaa nijaayoo foog de fañ oyofal yi mu paan fekk na noonu programme bi demee. ñu ngi nuyu mbooleem muqaddam yi nga xam ne chef de Cheikh Cheikh na leen programme bi ñu ñëw teew ci buñ tuddoon Baye Talla Wilane rek tudd nañ mbooleem ittihaad bi waaye foog ñu tudd benn càq boo xam ne seen kàddu ngi ñëw ci kanam muy rabitatu xuddaam nga xam ne nit ñuy liggéeyale Cheikh Baye Awal ci mbooloo muqaddam yu ànd maa ngi ko doog a gis képp ku bokkut ci rabitatu xuddaam muqaddam nga muqaddam nga ci waxin waaye nag ñi bokk ci raabita mën naa wax ne mooy ñi am kayitu juddu wala mooy ñi am dentité nga xam ne mën nañ leen a tudd ci wenn tur mën nañ a tudd ci wenn tur bu ne ñu gërëm raabita gërëm nañ lu ëpp ay juróom fukki mu xadam waxoon naa ko képp ku ci bokkagut ñu ngi koy ñaan mu bokk ci ñu ngi nuyu Seydil Imam Cheikh Ousmane fekkee nuyooguñ ko xam nga man mënuma affaire lim parce que man damay bëgg jàpp rek daw waaye ñu ngi nuyu mbooleem ñi nga xam ne rek teew nañ fi ci gàttal nuyu nañ suñu mbooleem yaay yi kaddu salaat bi liñ ciy njëkke mooy lim daayira yi nga xamne ño joxe ay tek ci teg santane won muy daayira bu nek junne pour fukki junne yi nga xamne mom lañu saf fi ak fukki junne ñi saf ci nganub Imam Cheikh daayira bu ma tudd rek joxe na ñet daayira ño ci joxe joxewul xubbu baye Cheikh ba Abdoulaye saw jité ko joxe na seerul qalbi Cheikh ba Abdoulaye saw jité ko joxe na wildaanul muxalladuna Seydi Kewaasi Soosa jité ko joxe na xale sante baye Cheikh Modou sen jité ko joxe na jiilul jaddiit Pape Signane jiite ko joxe nañ junudul xadara Baye Alaaji Gay joxe nañ junne nuurul basar numéro 2 Cheikh Daouda Mbuub jiite ko joxe nañ junne Saañang ci njiitul Ousmane Gajaga joxe nañ junne daayira yi nga xam ne ñoo joxewut mooy nuurul basar bu Cheikh Babacar Sarr suukuta bu sëñ Ali Wilane rawdul muhibbin bu Baye Suley bi tey wala Baye Ousmane Diouf amaa affaire tànt bi nit ñi ci daan laaj sabaat bi ñoo ko liggéey ñu ngi leen di gërëm bu baax di wax sëriñ bi ne amul benn meeting bu ñu mës a woote sabaat bi kenn de ko ci liñ sase ne moom la ñuy def ci keesu sabaat bi bët bu set wala weer wu dee mbooleem daayira yi ñu ngi koy matal ñu ngi koy rafetal te lool ci ñoom la man ku mën a ànd ak man yaa baax parce que dafa am jikko ju baax junni ñu yore ju xam ne mënuma ko mooy nga ñëw fekk wa Moussa Diop mu defu dara nga naan ko yow Moussa bi yàlla laal suuf si yaa taxawoon xëcc ko bi yàlla peinture asamaan si yaa ko peinture la ba mu kontaan def loolu lu baax la waaye maa ngi koy jéem mënuma ko xam nga aarif jamono june bàyyi mu ne al aarifu yasdaadu fii kulli yawmin tarxiyan kon tarxiya boobu lu baax la maa ngi koy jéem waaye mënaguma caa yegg kon nag ku mën a ànd man rek xamal ne ku nangu xarit xaatit la ñu ngi leen di jégalu bu baax di wax ne tante bi su rafetee ci ñoom la ci waxin waaye sababul mubaasara bi nag mooy Cheikh Baye Ewal mi nangoo génne xaalis ñu bay day ñëw Taïba Sané rek waaw seen base yooyu fu ngeen ko jëlee ma noppi rek jël numéro waa ji jox la benn waaye bi mu ko defee ba mu ko wooyee ba waa ji wax ko prix dafa maa woo ne ma xanaa fu muy jëlee xaalis ma ne ko foog taw de fekk xaalis dafa ñu koy jëlee ngir rek na xam ne Cheikh Baye moo nangoo génne xaalis ñu def lii kon ñu ngi gërëm ñooñu baax di gërëm mbooleem sabab yi nga xam ne ñoo jugee Sénégal yi woon nekk ci liggéey bi ñoom ñëpp suñu ñëwoon ak seeni tànk mbir mi métti waaye ñun Gambie dañuy am kersa ci Sénégal li Baye waxoon waa Mauritanie su ma ñëwee ci yéen ngeen teral ma su ngeen di ñëw ci man indi lu ngeen ma teralee su fekkoon du ñaan gi ma leen di ñaanal konoon dangeen ma xab waaye ñun suñ demee Sénégal ñoom ñu teral ñu ñoom suñu ñëw indaale waat seen i teral ñu ñu ngi gërëm bu baax oustaz Aboubacar Ndaw suñ mën dóob nit ku baax moom su ma mandee ba def samay kufra ba toog day bàyyi ba ñetti fan du ma ci bés bi de day bàyyi ba ñetti fan ñenn woo ma di oustaz aj ma ci kaw asamaan si su ma sañoon nga waxee nangam nangam xam nga su ma woon waaye daf may woo wax ak man ndànk mën nga li nga wax sax rafet na waaye nit ñi mën nañ koo déggee ne rek ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant oustaz dafa mel ni li ñu amoon ci kàddu sabab bi jeex na soo mayee cinq minutes ma tarxees wax sama waxi bopp xam ne sabab bi duñ ma wax ne wax la woon ma ko li may wax tey maa ngi koy wax ak ndawi mi dina bàyyi Kaffrine saxaaba bi dafa ñaanoon yenent bi ne ko damaa bëgg nga may ma ma dëkk ak yow ci àjjana yenent bi ne ko ay nii ala kasrati sujudi loolu nga bëgg muy dëkk ak man ci àjjana damaa bëgg nga dimbalee ma ci ay sujjóot yu bari xam nga bu ne ko woon ayin nii ala kasratil ruku'i sax ñu xam ne julli la ci jublu bu ne ko woon ayin nii ala kasratil qiyaami ñu xam ne julli la ci jublu waaye ko ayin nii ala kasratil sujudi wasjud waqtarib ñi sa laaj Cheikh du Bara ma luy sujjóot mu ne mooy nangul sa sëriñ kon ndawi mi dina bàyyi Kaffrine li saaba bi doon ñaan lan mooy dëkk ak moom ci àjjana mooy dëkk mi dina bàyyi Kaffrine saa su la neexee nga dem si siyaare xabru Cheikh Ibrahima bi dëppaat da nga koo xeeb boo si jootul dañ la dàq nga génn fa fi ne nag ku xam yàlla rek yaa xam li may wax kon nag yéen benn ko a'inni ala kasrati sujud yi soo bëggee sax mi dina bàyyi Kaffrine waa ji wax fii loo fi bëgg mu yomb la saxal ci kon nag dana ko woon a'inni ah ala kasrati sujud yi ndaw yi mi dina bàyyi Kaffrine nañ yokk sujud yi tey sujud ñaari yoon sujudal ci jalaal sujud ci jamaal dafa am benn waay dafa ma seetaan ma doon jéem a alxuraan ci benn télé déglu li may wax bu baax ma ne suñ Serigne Cheikh Abdou Barama dafa wax ne lépp lu yàlla teg nit boo xamoon li tax mu teg ko yaa koy njëkk a teg sa bopp fekk moom dëkkandooram bi mu dend dafa am ak jafe-jafe doomam jël doom ji yóbbu ko police ñu tëj ko ci kaso gi mu ne bi ma waxee loolu rek ci saa si xolam bi dafa oyof ci doomam ji ñu tëj mu ne oustaz bi ne li mu wax dafa mel ni kon sama doom bi xëy na dafa am lu ko naroon a dal mu ne affaire bi ci xolam. ñu toog ñetti fan guy gi tiim néeg waaje yàlla ji taw guy gi daanu bi mu ñëwee fekk xale bi lal bi mu doon tëdd moo kurub mu ne dafa yooxu ne wallaay ustaas bi wax na dëgg moom fajar mu dem ci waaji ne ko maa lay jéggalu lépp lu bon lu ma la mas a wax ci tëj gi nga tëj sama doom bi ndeke boo ko tëjutoon tey mu dee waa ji moom it am kersa ne ko dëgg dëgg sax sa doom ji du ko bon jël ji muy jël nii daal comme am na lañsin am na permis dama ko bëgg a oto muy dawal dama fay mu ne woo ma ne ma dëgg-dëgg seen sëriñ bi xam-xam boobu mu la jàngal nga ne ci ko jëriñ na ma léegi nag ku ma dégg dégg nga ma ku ma déggut bandi nga est-ce que leer na Cheikh Baye Awol lu def a gën lu mu defut maftu yi duñ ko corrigé kanaa xamoo saa soo demee ba ne sëñ bi lim def doon koo def rek war ngaa war ngaa démissionné dem jox ko ci feneen xam ne dootoo jëriñu ci xadara boobu nangul maqaama du jëriñ kenn nangul xaasiya mooy jëriñ nit كودون نلاو غودي نيالا دي لا هويل خليفه بي دو هوي سا باي دو هوي سيني جاي كيغا هوي جي خامغا كو كون نانغو غا مخاما بي واي نانغو قافيه بي موي بو ني بو في كان سول مبو بولو بول سول مبو بولو واي ياو غا نانغو غا قافيه بي نانغا مخاما بي بو في كان سول مبو بولو غا سول مبو بولو استاتيكو بيندي تا ما تاي نانغو هو قافيه بي سبحان الله لي موي ماي جي قافيه دو تي خام قد قصني بالعلم والتصريف اذ كن يكون بلا تصريف kon bàyyi bi mu si jootalee yàlla li muy maye ci taxasus da ko cee may sëriñ bi li muy maye ci xaas yi ak a bëri jàmbaar ju doy waar a nekk nii li ñu dal ci Cheikh du Barama yàlla bu mu dal ci Cheikh Baye Awal mooy toog di complexe ba mu génn adduna xamuñ ko léegi booy takk Cheikh Abdou Barama fekk waxoon moo doon bàyyi rek gars yi kontaan nañu sa waay Cheikh Abdou Barama toogu di xaar doon kooku wax naa la ne bi bàyyi di tibb dafa taxaw bàyyi tibb mu tibb Cheikh Cheikh ñu ngi jégalu de maam moo ñu jàngal ne. لكل مقدم حضرة منها يفيد الفتح والنور والحضرة لا تقبل أن ينسب فتحها وحضرتها لغيره فما مكجانغال من مقدم بن رفا أم حضرة حضرة بي ماي أي لير ترنا نغني جل لير ديكو أسكن يفود فوق لو رك موتاخ ني تاك سن جاري واي ني تي جيغلو شيخ باي أول بوم ني ري ني شاب برام ري ري دا بن واي بو ديف لما نيه موي مان loo ci dégg mu jaaxal rek woo ma laaj ma mu wax ne yow sa wax yi ngay wax yam neex na waaye li ma ci naqari rek mooy li nga ne Cheikh Abdou Barham du xalifaab kenn loolu ni ma méttee ma ne ko da dama koo xeeb mu ne waaw ma ne ko yàlla xalifaab kan la mu ne ma kenn ma ne ko da koo tere da ko dafa yow ki gën a foor ci nit ñi du xalifaab kenn di kon doon xalifa taxu dafa yéen yàlla ne ko ni may bañee ne mbootam Cheikh Abdou Barham mi mu ngi ci doomi Cheikh Abdou Barham yi noonu laay bañee ne mbootam baay mi mu ngi ci doomi bàyyi su ma ne mbootam baay mi mu ngi ci doomi baay yi wala mbootam baay mi mu ngi ci sama sëriñ ah kon war naa nangu ne sama mbootam sëriñ moom toxu na ci kuréel sama doomi sëriñ ji wala su ma ko defee doon naa fekk Cheikh Abdou Barama lim liggéeyal yàlla romb na loolu wax naa leen nit ñi dañuy nax rek waxtaan na leen Cheikh Abdou Barama ñu ne moo samp jamee bi moo samp ittihaad bi loolu ku ko bëggut a def Cheikh Abdou Barama dafa liggéey bañ fay ko liñ ko fay ci la taxawale ittihaad bi ak yooyu kon ndaw yi Medina Baye Kaffrine ku am lu kenn amut da nga cay mel nu kenn melu ku mel ni Cheikh Baye Ewal pa wi laan dafa ragal rek kudut kudut kudut Baye Niass Abdou Barama moo la mën ah, lu ci topp lu ci topp loolu am na léegi da nga naan kudut Baye moo la mën waaye jël kudut Abdou Barama Baye moo la mën rek Baye nga yem foofu suba Baye mu ko jël mu ko boppam moo la tooñ dëgg-dëgg ki fi mën doon Baye ne moo mën. ku yenn lam enu won jang jangé wo doli wàcce te daanu wo buñ la waxut yaa fi mën dañoo ragal waa yaa fi mën kon ni ngi ndokkeel ñëpp di jéggelu ñep tay oustaz tey nag bi da bari pax de tey neexut a fubalee moo tax ñuy tëgg foofu kàddu yi salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ oustaz sant nañ la gërëm nañ la xam ngeen ne su ma ne ndaw lu am xam-xam la loolu waxam lii mën na koy tattale waaye jàmbaar la yàlla yàlla aaral ñu ko euh, kiy tegu ci kàddu yi rek mooy ki amee baatab wala kàddu muqaddam yi xam ngeen ne jotaay bii cheikh Mbaye Awal daf ko ne daf ne tuddee na ko muqaddam yi cheikh Abdou Barhama yi ñoom ñëpp ñu mobiliser seen bopp tey ca bëccëg wala ca yoor yor dem njukkali ko mu waxtaan ak ñoom ne leen tuddeewu ma leen ko ngir dërëm waaye nag pour tuddee leen ko bur gis leen ngeen xam ne lii yéen ko moom ni ki moom da koy delloo. muqaddam yooyu nag kàddu gi dañ ko jox Cheikh Mouhamadou Lamine Diop mu utu si mboolem muqaddam yi Cheikh Mouhamadou Lamine Fall tafaddal ngi ñaan digga jërëjëfe Cheikh Baye Owal jërëjëfati cheikh mayo way jërëjëfé cheikh bayhari أئمة الشيخ عبد البرهام احضري لنا بهذا المحضر والتعطي فيه بنصرة تأتي لنا بسفري وتحفظي أحبابك من كل شيء يدور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سرين بي rabitatu xuddaami Cheikh Abdou Barham ñu lay nuyu tur wi rek tur dafa ëmb ay ay mbóot xam nga mënoon nañ ko tuddee rabitatu leneen waaye ñu ne rabitatu xuddaam nga julli rakkaat rakka xam na sujjóot te rakka bi tuddooñ ko sujjóot rakka am na toog te rakka bi tuddeewuñ ko toog ñu tuddee rakka rokon ndek li rakka bi dafa façon ci rokon moo tax ñu tuddee ko rokon rakka bi eh, xitmatu mooy rakka bi nga xam ne ci la ci la ci la ci la julli gi di fasoo ku ku xidma faat rakka boobu bokkoo ci ku fekkee xidma fekkee nga rakka bi booy fayit rakka boobu du bokk ci li ngay dolli moom moo tax ñu tuddee rakka rokon rek ci lay façon moo tax ñu tuddee mbooloo mi rabitatu quddaami Cheikh Abdou Barham ci njiital Cheikh Barham Diouf mu ngi nii ci suma gannaaw mu waroon a jël kàddu gii wax naa euh, Wilane Baye Sané ne ko yéen a ko dàq jël leen ko wax naa Cheikh Omar Mbuub wax naa ko ne ñu bañ waaye maa ngi jéggalu lu ci dëng rek ci man la waaye ñoom wax nañ ma kàddu yu jub yu jag yu rafet mu jëm ci yéen daamiti tuq daama nee na ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ndokkeel waaye ñu ngi lay siyaara waaye ñu ngi lay ñaanal yàlla jàmm ak yokkute ak tawfiix ñu ne kontaan nañ lool Cheikhoon buum nee na ma li waral kontaan gi juróom benn fukki muqaddam ak juróom teew nañu fi te ñëpp a ngi ngir dégg sa kàddu gi biñ déggee audio bi nga wax ne ne ñëpp ñëw su ngeen ñëwut ku ci xam gàmmu mu yónni Omar Koli Seydi Omar Koli walla Seydi Thierno Ndaw mat dend ak benn waaye fekk ñu ngi koy déglu mu ne ma xee sëñ bi sëriñ sëriñ sëriñ sën sëriñ sën mu ne sëriñ dafay nekk ndaw moom loolu la wax xaw ma nag lu mu jublu ci ndaw gi waaye li wax xalaat naa ci rabita ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay gërëm bu baax a baax rabita Cheikh Baram Diouf ne na rabita ñu ngi wax ne ñoom ñëpp kenn ku ci nekk njëfandu la boo xam ne ñaal na la yaa xam kenn ku ci nekk nag lu man ci tool bi yaa ko koy liggéeyee waaye yow lay xaar fu mu neexit mu ngi ci sab denc rek yaa ko fa denc ñoom ñépp li tax mu ne ñu ñu taxawal rabita mooy rabita dañ koy def pour takkatoo nga xam ne danañ man di toog miinante ñimiwante ba ku bugg a yéex am ku la mën a wax ne gaawtul waaye suñ takkatoo dana am ku yéex te doo am ku ko mën a wax gaawtul mu ne loolu moo tax ñu sawar ci rabita ñu ngi wax li Cheikh Abdou Barham wax ne asartu xubba bàyyi an kulli qabilatin fa wilaanen wa ndawen bi antuha li hubbi bàyyi rabita ngi wax loolu donte le seen làmmiñ jotut ko waaye seen bëggee lañ koy wax xabiila dana nekk eh, dana nekk ci giir su fekkee ci deret ci la waaye nag xabiila dana nekk ci xaju gi bakkan bi xaju def ko muy askanam ci bëgg-bëggam yi raabita nag bëgguñ dara yow lañ bëgg yow lañ jublu yow lañ armal su fekkee na daal ci julli la qibla jiñ jublu yow la ngi lay gërëm bu baax Baay dafa wax ne law kaana rasulullahi kaana musairan libarhama naaran xaalidan kulal mathari Baay mu ne su fekkoon ne yenent bi dafa nekk safara suy lakke moom bëgg na waaye aljana tam lawlaa iltisaasu fil jinnaani bi nuurihi lama xanna naxwal xuldi ku la mubassiri su fekkoon ne aljana duhut bànneexu gañ fay bànneexu leeri yenent yàlla Muhammad mu ne ko am gis-gis doo ko bëgg doo bugg aljana kon nag aljana jooju ci biir sa Cheikh Abdou Barhama yow la yaay jàmmi Cheikh Abdou Barhama yaay su fekkoon ne dañ ne sëriñ bi daay maye meew yow yaay meew moomu yow la ñëpp bëgg naan su ñëpp maree ci yow lañ jëm si yow la yaay ndox moomu yow la ñëpp bëgg naan gis nga su fekkutoon ne ndox am saaxir mii su doxutoon ne tat tat bi yàlla doxan jox la digganteeg soxla ko xam nga ndox balaa ko waajee soxla dafay mar mar woowu aw métti métti la métti métti boobu su taxutoon ak moom ku naan ndox mi rek eh, eh, da nga wax ne yàlla rek fa ne da nga yàlla rek lay saf loolu nag dafay gaar bakkan ci kim bëgg léeg-léeg waa ji tat tati bakkan yi soxlaay bakkan yi tata tata tat ba nga xam ne bu xoola Seex Baay du ko xàmmee waaye raabita dañoo takkatoon ak pour tat tat yooyu ñu xeex moom ba du ñu gàllankoor salaamaaleykum wa rahmatullahi taala Euh, waa ansaaru diin bu xarafeñe yebal nañ ñoom Cheikh Baye toog ñu ngi nii ansaaru diin Serekunda ñoom it yebal nañ seen secrétaire général Cheikh Tidiane Diop maa ngi nuyu ñëpp. waaw dañoo fàtte woon a tudd. dañ ma wax ne su su may wax naa commencé ci Cheikh mbay Guèye ñu ne làmmiñ wii ñuy waxee ñun ñëpp ñu ngi koy fàttaliku ñu ngi koy tudd ci sa kanam. ñu koy ñu ci ndigalu man do mo ne nañ jang ben faata ak benn ixlaas ñu enal ko mom dafa xaal waaye dañu bëgg a wax raabita ay ndaw lañ sañ ci ndaw moo ko man te dëkk bi li koy naatal mooy ñun ndaw yi ñu ñëw ku ne xam fi kër tabax ko ñi ngi am ay oto ñi ngi am xaalis ku ne na fi xam kër tabax ko dëkk bi mag bu ko defee bu dëkk bi magee rek dox bi day gaaw raabita ku ne na fi am kër Cheikh Baye loolu lañ bëgg ni nga mayee paay xadara bi mayeeñ raabita ku ne am fi kër métier yi ñëw fi gars yi ba mbay mi dëkk bi màgg loolu lañ bëgg waxal waaw waaw kañ sëriñ bi mu ne waaw yaa ko ñaan yaa joxe luwaa bi waaw kay ñu ci barnaamij bi xam nga nag am na ñu ma fi ooyoon nekkuñ fi te bokkoon na ci sarta bi mooy ko absent ku ku ñu oo nekkoo fi rek sa dawru passé na mu am ñu fi ooyoon te nekkuñ fi ma dem ci sëriñ bi am lu ma wax ak moom bëgg a oo ñooñu daf fi daf fi xewoon nag sëñ bi euh, taarix mooy répété dañ fa am jotaay fii ci waxtaanu ngoon ci mahad bi benn xale mooy moo ñu nekkoon awalul awaayil ñu oo ko pour jox ko nattu jaam nekku fi bi ne man xaaba xaaba sax mu ma xool affaire bi mu daw suma yaram ma ñëw ma ne sëñ bii mu a ma ne ko dama bëggoon loi boobu ñu dëggaat ko ci xale bi to oo ko jox ko cadeau mi mënu lutax walu ko def fi def lu kenn deful ñu cëral ko luñ cëralul kenn mënu ma tigi o ko jox ko fof la laa del si wax tey ñi nek nekkuñ fi ñom ñepp ay jigéen lañ te kenn ku nek ami fi nomba tank bu rëy bo xam seen wax dina fi am solo te ñom ñepp jigéen lañ kenn ki mooy seeda yaaw yu wilaan moy yaay mahad bi waaye sax mooy yaay fayda fayda saani fii ci Gàmbi Seyda Wilane mooy yaay pharaon bi Seex Abdou Barham moo ko sax te itam mu man ci jigéen ñi loo xam ne góor ñi sax mënuñ ko ci góor ñi ndax waxtu buñ ne nañ def jigéen ñi nañ def loo xam ne góor ñi dañ gis ne buñ amutoon jigéen ñii xëy ma delluwaat foofu am lu ma wax moom si moom waaye nag ñu teg ci charte mooy buñ joxaatee heure te joxe nañ heure nañ fexé ñepp ñew ci waxtu wa ndax té lu moy neexal waxtu moy neexal bir mi suma ben boss ci school ba bam nekk eh, master bi moy alkaali ba mooy master bi jabaram di jaay ci school ba te maa amee woon maquette bi ñu am loi buñ fa tek moy buñ amé ñetti wër kenn ku nekk am na lu moy fay waxtu bi jot ma ñëw fayee ko ni ñi fay am ñu fay ma ñëw dàqaleen jabaram bok ci te mooy master school bi soxna si dem ci master na ko suma xaalis bi ma la joxoon jox ma damay fay mu ne ko lay fay mu ne ko oustaz loo mooma daan xatataay bi jot na mu ne ko atte nag xanaa oustaz xamul ne man maay sa maay sa borom kër demal nga ne ko man ma ne mu bàyyi la kooku ne ko déedéet rus naa dem suma morom yi nekk fa te fayu mu ooma ma loo yow da nga dàq yaa suma soxna si ma ne ko waaw loo lu tax nga dàq ma ne ko luwaa bi moo ko tere mu ne xanaa ah, luwaa am na foo xam ne luwaa fa àggee dañ koy biréegu waaye waaw ah, moom loolu ma waxoon moo tax nag ñu dëggaat bi luwaa bi o Seyda yaa o Baye Wilane ak Seyda Wilane jox leen luñ joxuñ kenn te ooyoon nañ leen waaye nag fiñ ko teg noonu moo tax kon nañ ñëw joxe seen kàddu bala kàddu gay jàll Seyda yaa o Baye Wilane ñoom dañ miin di ànd moo tax sama far oo leen ñoom ñaar <laughs> waaw ak Seyda Wilane bi nga xam ne mooy umu faron bi bismillah ñu may leen yoon ñu ñëw fii am na sax ci sëriñ ba teg waaye loolu moom man la man man la conféré moo tax ma noppi ci Seyda ak Sil voilà voilà. sëriñ bi ñu ngi ñaan dëgg. alhamdulilah. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alxalifa dafa waxoon tey ci ngoon ne bu nuyoo nañ leen ñu fay mbooloo mi yépp toog ñuy wax asalaamaaleykum. wa barakaatu te dégguñ dara ñu ngi sant yàlla bu baax di wax jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass loolu àddiya la bu ñu jox suñu sëriñ Cheikh du Barham ñuy wax jërëjëfee Cheikh Abdou Barham jërëjëfee Cheikh Abdou Barham jërëjëfee Cheikh Abdou Barham international. mooy li Mori Sadok ñu ngi wax jërëjëf alxalifa Cheikh Baye Awal jërëjëf alxalifa Cheikh Baye Awal jërëjëfee alxalifa Cheikh Baye Owal sëriñ bi nga yàgg fi loolu tëwér ñun namuñ ci yow dara nga toog nii rek di muuñ muuñ gi sa baay daan muuñ diñu jàkkaarloo ñun diñu xool ñuy bëgg suñuy xool yi neex ñun loolu rek lañ soxla ci waaye nag dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax tey lii ñoxor xomp du de nañ leen waxante dëgg rek Cheikh Abdou Baraam ku ne toog fii rek tey ku génnee lim def ci yow looy dese waaye wax leen doo fi dese dara ku ci nekk rek yaa ngi sol sa yére bu beex war sa oto ñëw mel na la neex <laughs> waa ñu ngi sant yàlla sëriñ bi ñu ngi lay ziar bu baax Cheikh Baye Hadi Cheikh Mamadou Hadi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziara di la bëggee di kontaan ci yow bu baax fii nga toog <laughs> Cheikh Abdou Barama ngi kontaan bu baax a baax ndax ku la bëggoon la man xam naa ci daal ku la bëggoon a bëgg ku la joxoon cër am fu la teg bu baax te déglu la sëriñ bi dafa am kóllëre Cheikh Abdou Barama kóllëre rek la ànde woon ak ñun tey fi mu tegoon sa baay foofu rek la ëlbateku teg ko kon ñun ñépp ku toog fii rek li ñu war fi Cheikh Abdou Barama tegoon ma Mamadou xaadi ba ànd ak moom mu jóge fii Cheikh Baye Hadi toog mu jox ko cër boobu kon ñun ñépp loolu la ñu war a ëlbateku jox ko suñu xalifa bi sëriñ bi ñu lay ziar ñun soxluñu ay caméra xool ñun li ñuy soxla dañuy wax ak yow ndax tay ñun dañuy ndamo toog suñu sëriñ toog ñu ñuy tag ci kanamam muy bëkk kon ñun liñ lay wax dañuy lay tag suñu sëriñ Cheikh bay nit ku bax la nit ku am yar nit ku dal nit ku tay nit ku mëna handok xandoog yalla ma fi gëna bon waye daf ma ibil bopam may ñaxtu sax di ñaxtu muy ree naan ma yaa ma war a dóor wala maa la war a dóor ma ne ko mëkk wi laan moo di yow mii yaa ma war a dóor loolu ci oyof la bu ko neexoon toog ci cinquante kilo wallaahi diñ ko ko ñemee wax sëriñ bi ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ñu ngi lay ñaanal yàlla taxawaay wi na yàlla gën ko dëgëral li nga bëgg ci ñun xam nañ ne mooy ñu àndoo nekk benn ndax foofu rek la sa baay taxawoon bi Baye Niass taxawee ne moom karaamaam mooy alxuraan Cheikh Abdou Barama dafa ñëw taxaw ne man suma karaamaam mooy sumay njaboot yëpp ànd nekk benn foofu rek nga taxaw ak ñun foofu dong dong nga taxaw ak ñun ñun ñëpp ñu àndoo ñu ngi lay ñaanal man li may lay xool rek di la ñaanal mooy Zahra ñu toog ba muy mokkal alxuraan ci say loxo ndax gis nañ mbëggeel gi nga am ci moom waaye moom mbëggeel gi mu am ci yow. jéggi na dayo tey xale boo yóbbu daara mu dem yaayam jox ko gannaaw xale bi jooy ba tey loxo ya ko teg loxo yu ko neex la bu ko naqari woon rek xale ba dana jooy kon ñu ngi lay gërëm ci loolu ñu ngi lay sant bu baax a baax ñuy wax suñ mbokk taalibe yi ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ñu ngi nuyu suñ sëriñ Seex Mouhamadul Misri ñu ngi jéggalu bu baax xam naa ne nag am nga yar boo ma doon waaye maa ngi jéggalu ci loolu bu baax a baax suñ ko nuyoo nuyu nañ suñuy sëriñ yëpp waaye ñu ngi nuyu Raysil Farxo al Muxadam Cheikh Abdoulaye Sow buñ ko nuyoo dañuy wax ne nuyu nañ bépp muxadam boo xam ne laaf na ci euh, Rawdul na ñu ngi leen ne ziyaara di leen nuyu bu baax a baax waaye bu ñu duggee Medina Baye Kaffrine nuyu muxadam ya fa nekk yëpp buñ tuddee sëñ taal tudd nañ bépp taalibe bépp Cheikh Abdou Barhama waaye bu ñuy duggee ci ustaas buñ ne rey Omar Siñaan laafaale nañ ñëpp ñoo xam ne rek am ustaas nga ci jamiya Cheikh Abdou Barhama euh, ñu ngi nuyu jigéen yi Serekunda yëpp ñu ngi leen a nuyu ñu ngi leen a sant ci njiital yaa Seyda jàmbaar joo xam ne jàmbaar yi fàkk tëdd la tey mu ne ñu wax ne ngoon tey ba saali gii ba ko Cheikh Abdou Barama di fàkk moom mii ak yaaxari tàngara ak rey mu laaw maa ngi fàtte turam ñoo fi nekkoon te ba tey mbëggeelam ci Cheikh Abdou Barama day yokk waaye amul benn dellu gannaaw ñu ngi koy nuyu suñ ko nuyoo nuyoo nañ yaa ma astu fay mi ci waañ wi ñu ngi koy gërëm di ko masawu coono lekk yi neex na macha allah du nuyu Seyda Aïda Ndiaye kon nuyu nañ jigéen ñi waaye bu ñu duggee Medina Baye Kaffrine bu ñu nuyoo suma yaay umul xaarifiina yaa Awa Ndiaye nuyu nañ bépp jigéen boo xam ne mu ngi Medina Baye Kaffrine waaye ñu ngi nuyu saxaada di ko ñaanal yàlla yal na yàlla gën a dëgëral taxawaay bi mbëggeel wi ci Cheikh Baye yal yàlla gën ko dëgëral ñu ngi lay bëggee bu baax a baax a baax ñu ngi kontaan ñu ngi gërëm waa Taïba Sané bu baax. ndax man maa nga Serekunda ñoom ñoo fi nekk bon naa ba li ma fi ñëw sax bariwut waaye lépp rek dañ ma ko nangul yaa xadi yaay taxaw taxawaay boo xam ne euh, ñàkk liggéey yaay du fe du du mën a ñàkk feeñ ndax liggéey yaa xadi yaay kon ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax waaye ñu ngi gërëm ustaas yi nga xam ne ñu ngi ci maxaat bi nga xam ne ñoom macha allah ba ma Cheikh Abdou Barama booleeg ñoom ba tey amul benn ustaas bu nekk fii ci mahaat bi tey desal ma gannaaw wala nga bàyyi ma ñoom ñëpp macha allah dañ ma fonk bëgga ma lool kon maa ngi bëggee ci loolu di leen gërëm sëriñ bi maa ngi jégalu nag suma kàddu gi du bari dama kontaan waaye nag dama am lu ma fi taxawee tey dafa am ñetti nit ñoo xam ne man dama leen a laajtal Cheikh Mamadou Hadi maa ngi jégalu bu baax a baax Wilane Mody maa ngi lay ziyaara bu baax. Euh, addiya lay laaj addiya bi nag ci ñetti nit lay dem ndax taa amut te bàyyi taala naasirul xadar bi mu joxee waa ji micro bi ne ko laajteel ma addiya su ma yaram dafa daw waaw su ma yaram dafa daw suma xol bi ne yarax ne sëñ taala ñun foog tey danañ laajte addiya pour sëñ taala ak imam Ousmane Cissé ak oustaz Ibrahima waaw ah, taraanga taraanga rek a koy fay ñun lii lañ am nii ñoo doon ànd ak Cheikh Abdou Barham ñun amuñ dara luñ def ak ñoom du dul dëkkati suñu alal daleen ko jox képp koo xam ne nag li la Cheikh Abdou Barham a jox sëriñ baal ma rek waaw baal rek waaw ñaas waaw yaa ko gàdd yaa ko gàdd ah de sëriñ bi déedéet déedéet ñun ñoo koy jox ñun ñun déet waaw bisimilah ñes macha allah dégg loo dégg loo ñu ngi ko jël bàyyi yow yow baal ma rek waa dégg Mm-hmm. ah sëñ Talla boo ko jëlut nag ma laaj boo ko jëlut kon ma laaj waaw baax na Oustaz Ibrahima waxal boo ko jëlut ma ma ana imaam imaam waaw bo boo ko jëlut rek ma laajte danga ko jël waaw macha allah kon nag sëriñ bi ñu ngi lay gis nga jëf ji yëpp jëfab Cheikh Abdou Barhama lii yëpp jëfab Cheikh Abdou Barhama la noppal ñu bëggul ñu sonn tey bu ma fi taxawoon di laajte dana jël temps waaye pour gàttal rek pour bëgg nit ji bëgg moo tax ndax suñ sëriñ saa ngi nii toog kon nag ñu ngi wax jërëjëfe Cheikh Abdou du awa baay wi laan mu di datun di du Abdou Barhama askanu fi xariyati tey bañ a seen Gambia da saakum laaw xere mu yo sa <laughs> bàyyi tooñ waaw kay jërëjëf Seyda yaa aw Baay Wilane oo nañ ko oo waaye Seyda moom dawrum bi mu ne nañ ko puus ndax dafa am lum nam ma ca kanam te du xam ne ñemewut a jaar fii ci diggante bii mu bàyyi sëriñ bi waaw xam naa moom am na lum nànd waaw su ko defee bunt bii la nànd rek mooy ne xaddee bi moom am na borom jërëjëf eh, Seyda Mansour Faye ñëw na umul umahaat yaay yëpp biñ leen dajalee moom mooy seen yaay ci mbooleem euh, mën a tex yi ana mu ndax ñëw na ñëwut moom dafa sonn ca waañ ba moo tax sëriñ bi ne na am na ngant kon jërëjëf euh, Ousmane Diop wana Seyda Massou Faye nekk rek xanaa xamoon ne suma jabar ñëw na ok su ko defee kon sama yi na buñ bàyyee ko ci moom ñu oo سنو كليفة من ناصر الحضرة نان س سيدي تعالى ولان مملا نجاك أرجو بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah waaw ñi leen di nuyu te leen siyaar nuyoo ñu jiital ci Seex Baay Haadi nga xam ne dama daan wax dama daan wax ne magam jataay bi ak kilifa jataay bi bokkul tey Seex Baay Haadi muy kilifa jataay bi kon man du ma dugg ci détail yi su ma ko nayu naa ñëpp sama wax ci nag lu bëri wàññeeku na ci parce que stas Aboubacar Ndaw wàññi na ci li ma waroon a wax lu bari oustaz euh, Pape Signane na ci li ma waroon a wax lu bëri surtout oustaz Lamine Diop man la ma bëggoon a dégg dëgg nag moom dégg naa ko ci rajo te te loolu laa bëggoon a dégg dégg naa ko ci ñoom gis nga nii ñuy def mag ñi noonu lañ taxawalee monde bi noonu leen taxawalee lislaam parce que jullit yi fañ ko daan def jaay yi fañ koy def loolu moo tax moo wax noonu euh, si koro moom moom boppam ba mu waxako waaye bu waxee kàddu moo ko moom kon dañ daan jox nit ñi kàddu ñu wax même xare ñu samp xeej bi taxaw ko le na la demal nga dem taxaw ne suba danaa def nangam loolu moo waral kàddu yi bëree ñii te kàddu bu ne nag jut na njëriñ ñi ngi kontaan bu baax seen bayaat yi xaw ñëw nga fii wala ñëwuloo fi gàmmu gii waaye su ma fàttalikoo yaakaar naa man maa ngi daray daje yow ci gàmmu waaye seen bayaat yi nit ñi kontaan nañ sa <laughs> nit ñi kontaan nañ ci lool lool lool ndax mbir mii ñoo sa bay la woon ak Cheikh Abdou Barham Cheikh Abdou Barham nañu bàyyi garab la doomam yi ñooy bànqaas yi mu ne ñun nag ci bànqaasam sëñ Mouhamadou Hadi la ñu yàlla ndabloo kon tey soo fi dikkee mbooloo mi dañ kontaan lool rawatina nag bi nga fekkee mbooloo mi jëfee li Cheikh Abdou Baraham Cheikh Baye Ewal digle woon wax dëgg yàlla muqaddam yi yëpp ñi ngi nii man am na kàddu yow moomuma ko ndax benn waaye daf ma mos a wax ne ma muqaddam bu ne nañ ko sos nangam ma ne ko man de loolu ñëwee koy wax li ma ñëwee wax de mooy daayira bu ne nañ ko sos nangam wala farma bu ne nañ ko sos nangam waaye loolu moom booba xam naa sëriñ bi bu baax waaye lii dara newut ca baax na lool eh, tey ku gis jotaay bii eh, eh, da xam ne li Cheikh Baye Ewal tracé baax na lool Cheikh Baye Ewal dal wax nit ñi ñi ngi lay déglu soo waxee rek daañ ko def mbooloo ñetti pàcc la benn pàcc bi loo def baax na seen yoon newut ci lenn benn pàcc bi li nga def bu baaxee ñu ne baax na bu baaxut ñu ne baaxut benn pàcc bi loo def baaxut du du duñ nangu mukk ngay fexe nag jël sunu saani bi danga nga diri si ñële bu bu fekkee ñi nga xam ne loo def baax na boobu benn sulus la jël nga ko beneen bi mooy ñi nga xam ne li nga def bu baaxee ñu ne baax na te li ngay defal ngay baax kon ñooñu jot nga leen bi nga xam ne nag loo def du baax pour ñoom catégorie boobu dañ leen di diriger aale ñoo leen ay seetal wote bu ñëwee wote ci réew bu bu kii amee juróom fukk ak juróom rek day yóbbuwaale ñeen fukk ak juróom a waajale far force noonu la mbooloo da doxee mbooloo mbo mbooloo yooyu lay demee waaye benn góor gu mag Mamadou Cissé Lo demoon na ba élite Afrique daanaka ci mbootaay gi bokkoon ak moom dafa noonu ma sëñ Talla ma ne ko ah mu ne ma sar sa lañ booy xool pepp yaay rot doo xàgg fa nga jëm boo sar seet sa lañ soo ko sar seet pepp la fokk am lu daanu waccal te dem ndax nga àgg fa nga jëm kon ñi ngi dañ tey suñu wax ji xaw dana dé dana dana dana jub wala du jub waaye kontaan lool tey jataay bii rafet na wallaahi jataay bii rafet na te man loolu rek laay seet boo seetee ñaari mbir yi yàlla na toomoo ko euh, niroo nañ mais bokkuñ man bi bi may nekk xale yi ci kaw laa daan toog toogaay boobu lu ko defoon damay xool nit ñi xool programme bi looloo ma daan toog lool ci kaw lu ci tuut noonu ma dem jóg defare ko mos naa ci def benn bés daanaka xaro la ci kër Seex Ahmad daan dama taxaw nii rek ma gis turbine baa ngi deex ndiki birigi baa ngi ko yi ci defoon mooy toj ni ma sulee soo mbubb mi nii noonu laa ko sumbee dugg ci ron birbir bi wax kaay na leen jox leen ma birig te mag ñaan ci kaw birbir bi ñu jox ma birig ma sukk birbir boobu ba pare génn solaat sama mbubb boobu man li may xool li ma taxoon a toog ci kaw duudoon pour bëgg a toog ci kaw bëgg a gis lee xew la tey nag li ma tax toog ci kaw màggat la <laughs> bokkuñ tey moom Eh, loolu moo ma tax toog ci kaw ndax am nañ xale yu dëgër ñu ngi leen di bu baax Cheikh Abdou ku xam programme bi mooy tëddal sa baat bii mi ngi dund booba xamul ne xëy booba xam na ne ñun mag ñi ñi ngi télé mu jël sa baat bi ron ko ci suñ kanam ba fi nekk lu ma mënoon Pape Signane mii mën na ko lu Cheikh Abdoulaye Sow mënoon Pape Signane mii mën na boo demoon ci suñ faramba yi lu ma mënoon tey Baye Haraka mën na ko demet ba faramba yi jeex kenn ku nekk tëlalal na la groupe sabaa bu leen yaakaar ne nag sabaa bi fa ñuy wax sabaa bi nangam mag ñi nàngam kenn lañ de bi ngeen taxawee yéen taxaw ñun kat ne dañ nekk ci seen gannaaw da leen kese su loolu passé ñii gërëm Cheikh Abdoulaye Sow mi nga xam ne moo xewle tey da wax ne sëriñ bi jox na ko tagg woo xam ne yéen muqaddam yi yëpp déglu leen ko Cheikh Abdoulaye Sow mii la ko sëriñ bi joxoon mu sëriñ bi mu ne bëri waaye dafa làq mbooloom cërut mbooloom pour siku mu ne ba mu des Sow ni mu man ci jëmmam noonu la jëlee mbooloom àndale ko ak man kon takk boobu ñun ñëpp war nañ koy jël bi ma bëgg a wax nag te jeexalee ko mooy lu doy waar la nag waaye ku xam da nga xam ne xam naa yéen ñëpp da ngeen jàq waaye <laughs> war naa koo man wax bi mooy Cheikh Baye Hadi ak Cheikh Baye Ewal laay digal loolu kéemaan la de taalibe buy digal ay sëriñam waaye li tax ma ne ñoom lay digal duut foofu ci façon sëriñ seen mag laa ci façon boobu laa koy waxee ndax ñoom ñëpp liggéey naa seen bàyyi bañ gërëm ma te mosuñ am benn tànku benn problème tiraanga bu nekk defal nañ ma Cheikh Mouhamadou Waali Cheikh Abdou Barham tiraanga bu nekk defal nañ ko te ñaar ñii ci loolu lay nekk Cheikh Bayawal bi mooy wax danaa jox baytaala fukki junni jox na ma fukki junni ci suma booy ak dégg nga muy li sëñ Ousmane Cissé nii doon wax amul daanaka ku kum kiw kon nag fokk ñuy wax ak ñoom ndax bi Cheikh Momadou Ali génnee àdduna yaa astucisé fa ma sëñ lan nga daan digal Cheikh Baye Ali nii parce que ndaw la te te ndukkumaan la dëkk ma ne ko naay ànd ak ñaan la toon ak bayam te bu mu bëri lu mooy waxtaan naay ñaan lii lii lii laa ko wax booba ndawe gi maa ngi ragal mu wax wax wax loo xam ne mën naa indi ay ay waaye xam naa ne bu dégloo dégloo ci rek dana mën dem Cheikh Baye Awal mii li tax ma da leen digal Cheikh Baye Awal mii bi bàyyam génnee àdduna ay nijaayam dañ dikk dama laaj eh, ne fi jàng jiitu ci mu ne ma sëñ Talla ñun dee fañ am xalaat ma ne ko waaw mu ne ma dañ bëgg Cheikh Baye Ewal teel lu jàngi ma ne ko li ma ci xam ne su ko defee dana yàq loo xam ne ba duna tukki dootul ko jagal mu ne ma ma ne ko jàngi ay diplôme liñ ciy jublu boo bëgg a liggéey nga ñu laaj la diplôme sàngam nga joxe ko Cheikh Baye Ewal dootul liggéeyal kenn defe mu ne ma ma ne ko kii du liggéeyalati kenn kon lu mu koy defee ah jafe nañ loolu ñu def ko kon ñoom ñëpp seeni wéyjur wax nañ ak man ma wax leen te loola gis naa benn mbir rek laa leen bëgg a ñaan wala benn mbir laa leen ay digal lu ngeen déggee baat ba xam nañ seer seer seer bay haadi yaa seer bay ëwal baleen weeganteeti yéen ak ñeeree de bu leen weeganteeti jotaay bu mu dem ni Cheikh Abdou doon defal Cheikh Baye Haadi rek def leen ko Cheikh Baye nag yaay bëgg a lisal waaye Cheikh Baye Awal xaw na ci yoon woowu yaa de kilifa gi dégg nga lu fu ngeen dajeeti rek bu la lu lu lu la lu la Cheikh Baye Awal jox rek jëlal yaa de kilifa gi su ngeen su ngeen weegantee rek nit ñi dañuy taxaw duñ xam fu ñu jëm te fekk naa ko ay jataay kii ne yaada gàmmu kii ne yaada gàmmu ba ba yëf tas fekk naa ko ay jataay na ngeen yéen ñaar su ngeen àndee benn mbir mënul leen dénku te nag na ngeen toppante te Cheikh Baye aani yaada jiitu Cheikh Baye awal topp sa kaw parce que sëñ aada yi jiite woon Cheikh Abdou Barham topp ci koom kon ba léegi li fi newoon rek ka fi nekk na ngeen doxalee noonu su ngeen ko defee ñun taalibe yi yëpp daañu kontaan yéen rek la ñuy waaw yéen rek la ñuy def leen noonu ma wax man loolu laa leen doon digal salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Talla yàlla fi yàgg te ñoo tax gars yi di wax ne mag jar naa ba ci dëkk man de xaw ma moom fu mu ko jëlee moom si Abdou Barham waaye moom moo waxoon ne wala moo ñu waxoon ne sëriñ soo ko bëggee jëriñoo da koo def yàlla waaye soo ko bëggee jëriñ da koo def nit coy yi ñii tey def nga leen nit jëriñ leen jërëñaay nii barke dee boo njaay rek suñ gàmmu suñ ci alaaji tut mu yàqoon Cheikh Baye Hadi ne moom Cheikh Baye woon yaay gàmmu dama lay bu ngeen ak Cheikh Bara du fi gàmmu mbir moomu ci lañ nekk nekk ba bay Cheikh Adi demee Cheikh Bara wala jeexal si mbir ma ñu tos gàmmu nga ñibbi Cheikh Babacar nee na ñaari xat sax sëñ tawaay sëñ Talla jërëjëf waay waaye sëñ Talla wax lañ jërëjëfee sëñ Talla waay loolu bu yàggee ñu am problème jërëjëf lii moom yow yaa ko sañ a wax waaye nag ñu ne sañ ñoo ba nga waxee ñu ne jëf ba ñoom ñii ñu xam ne li nga wax neex nañu waaye jërëjëf waay léegi ñu jox khalifa Cheikh Baye Awal ci gannaaw tuti bi ñu Seeda ak Seeda ya awa bi yaa awa bëggee laaj dama tiit Seeda mom teel naa yollee ko di am lu may xaar parce que dama xam ci waxtu bi ci saasi ku bëgg jaar diggante Cheikh Baye Awal ak laajal serignam hadiya bo auto mbar mi ñay moo tax foom fii kenn du fi wax lenn naam fukki junne kan la waaw dencal ñu ko wala nga jox ko sëñ Talla mu denc ko ah ah de doomu sëriñ bi ko yónnee tur baax na ñu jox sëriñ bi microphone bi sëriñ bi may ko ko may ko sëñ bi salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi siyaare sëriñ bi di wax jërëjëf Cheikh Baye Hadi. jërëjëf Cheikh Baye Hadi. jërëjëf Cheikh Baye Hadi. tey moom ñu fi jël kàddu ñëpp a daanu ma xalaat ko. di ñëpp a daanu ba mooy sëriñ Talla. moom rek moo jaar ko mu war a ñaar. di jot naa jërëjëf Baye man kay waru leen wax jërëjëf ci kanam sëriñ bi. waxoon naa ko waaye mën a def rang yi may dugal man fa soo tuddee bàyyi ne tudd Seex Abdou Rahman du ma bëgg a dugal ci rang boobu nekk ma foofa bu ma kenn dugal foofu ma soo waxee jërëjëf bàyyi jërëjëf Seex Abdou Rahman soo ma tuddee ka tudd nee ma nga jàng bi ak dëgër loolu kay jàngale naa ko ba sonn waaye fi ngeen may dugal nekk ma fa ñi xewee wax jërëjëf ñu ngi fi wax leen ne ko sëñ Daara jërëjëf yal na yàlla yàggal fi. te mu ànd ak wér waaye ñu ci des far si ñaan moom dafay fay xaar parce que léeg-léeg bu dee ko tay ba ma góof li ma góof bu ñëwee da koy peeral comme li ci borom bu ñu laal man neexuma ñu ngi leen di gërëm bu baax sëñ bi ñu ngi lay siyaare ñu ngi lay ndokkeel bu baax ñu ngi am nañ ne bàyyi nga lu bari pour ñëw fii bàyyi nga lu bari pour ñëw fii Cheikh Abdou Barhama mi nga xam loon pour nga ci dëkkam bii bëggoon ko lool waaye fi mu teg sëriñam bëgg na boo ñëwee mu wàcc la wàccuwaay boo xam ne teraanga la teraanga yoo xam ne te booba jamono mayiwut ko ba léegi sax jamono mayu ñu ko waaye sa mbaax parce que man man nga ma rek yaa ne bëgg naa dem man ne la loo bëgg rek loolu xam ci loolu moo lay fii kon ñu ngi lay mbégte bu baax kontaan nañ lool li si Talla wax ne Talla bi kontaan nañ wallaahi ñëpp a kontaan ñëpp a kenn ku ne boo xaroon kolom bi bët yi kay fekk kon ñu ngi lay dalal fii nga xam ne sa dëkk la yaa ko moom yaa ko moom sa dëkk la dina yow Cheikh Mouhamadou Missirou yi ñu toog comme ni ko Cheikh Pape Signane waxee kóllëre ci jotaay bi yàgg fi teew bu yàgg yàgg yàgg yàgg ànd ak Cheikh Abdou Barhama waxtu bu mu fi teew ñuy wax kàddu yoo xam ne kàddu yu rafet kàddu yu boole booloo bi jànkuwante ci ay coono waaye musta xaddi benn yoon ak bu mu ñëw mu ñëwee macha allah ñu koy dokkee bu baax borom xar la di ñëw ci waxi seen daara ji rek Cheikh Baye comme ni nga wax moom mooy suñu sëriñ moom bu teewee Cheikh Baye mooy jàngal nañu oto bi nu man man daw lu mu bëri bëri essence bu dawee ba ne yëpp ci biir fii bi nu mu war a def fay motoram fay ay lampam ngir lan sakkanal gasoil loolu la Cheikh Bara wax waaye alxuraan li muy foor foor loo ko mokkal moo ko te doo ko jëfee ba xam ne njëriñ amul njëriñ kon ñu nit li ñu déggee ci Cheikh Bara jàngee ko ci moom bu fekkee ne bu ñu demee ba jëf jot ñu sànni ko kon jàng ba amul njëriñ dañoo yàq temps rek te ñu bëgg moo loolu kon sëriñ bi ñu ngi koy jaay bu baax li nga wax te ñii di ko confirmé ku mel ni Sëñ Sadio Baye Lo ci gàmm moom Cheikh Alaaj Babacar Touré demee noonu man sëriñ bi duñu werante ci dara xam nga soo amee sa sa relance bopp relance bi mu ngi fële fiir gaa ngi fële ngir nga yàq ko te fiir nga nga naan bopp relance bopp relance waxal ci gi fiir gi moo yàq soo nekkee mu xaddam dangay am fulla ak fayda ci ñi nga xam ne yaa leen jiite nit ki mënu la yaakaar ba pare yem la déedéet boo seetloo woon joxe naa avertissement bu yàgg dama leen waxoon ne leen ca gàmmu bu njëkk ka ba ma gisee yëpp yëpp xew dama ne leen man leen di xamal leen ñu naan ma ne leen sama diggante ak sëriñ bi marto la ak dénk sëriñ bi loolu laa waxoon sëriñ bi dama ne leen marto la ak dénk ku dugal sa baaraam la def ci la yaayee waxu yaay mën na leen ci dara loolu laa waxoon yaa ngi dégg ba ma waxee sama waxee dañ koy jël foog ko sànni ko fële wax ci jëriñut ma déggaat ci lu ma neexut ma ne leen gàmmu gi du ko gàmmoo bu ko sëriñ bi gàmmoo du ma ko gàmmoo parce que man bëgguma dugg ci ñaari camp ñi taxawee fii ñi taxawee fii déedéet rawatina sëriñ bi teew moo koy gàmmu moo koy gàmmu fekk naa ko bàyyi ci hôtel bu mag moom ak yàlla rek ma ne ko sëriñ bi gàmmu gi jox naa la ko te yàlla tax jël ko yaa ko moom mu ne ko mbir mi sa mbiram bàyyi la loolu laa ko wax sëñ bi mu daan lépp ne ci dëkk fekk fa jàkk yu baari waa ji ñëw daggal na ay tool ne la bàyyal ñu jékki-jékki ay soxna njabootu doom yi màgg bëgg a bay dafay nanguwaat ay jàkkam jox ko ay doomam du loolu waaw comme sëriñ bi daf doon liggéeyal bàyyi rek yàlla am njaboot ak bàyyi gi ñëw nañ taalibe yi ñëw bi taalibe bàyyi sëñ bi moo lépp ne képp mu ne mu ne sëriñ ak taalibe mu ne ñu ñu mel ak taalibe yi ñoom moo xadaan ni mu ngi mel ni sàmm bi ak nag bi nga xam ne koo sàmmuloo moomut ko dañ koo sàmmuloo nag waaye moomut ko kon borom gétt gi moo moom géttam waaye dafa moom taalibe yi waaye mu xadaan yi ay sàmm lañ yaa ngi dégg léegi nag yow sàmm nga dañ laa sàmmuloo di fay su la neexee yàlla fi meew naa du problème bu am waaye boo jéem jaay benn nag wala nga rey benn nag ci kaso bi ngay fanaani kon mbir mi seen mbiram maam la ñoom ñoo ko moom ko loolu foofu loolu laa cay wax beneen lef bi may dugg mooy dama bëgg ñun ñëpp ñu dugg àjjana waxoon naa ko ca nit na bàyyi kafin bi ma teeroo ca teertu ba dafay am koo xam ne moom mooy yëkkati boppam sànni ko biir safara loolu dafay am te da nga da nga ne ci mbooloo mi nekk ne Seex Abdu Bara xam nga nekk ku daanu yooxu te yaa ngi dugal sa bopp sabar mooy la sa xol baa ngi tàng toujours yaa ngi mer yaa ngi gis sa bopp loolu doxul loolu dama bëgg mu jeex ci mbooloo mu wër loolu dafa wax ne sëriñ bi nee na waaraate naaju tàng la soo génn du la laal mbooloo maa ngi fi ñëpp yow nga beru fële bokkatu soo dee eh, eh, day sonal sa bopp ñëwal ci mbooloo mi ci sa bopp rawatina ngay koo xam ne tekki saa yu fële nga nekkoon sonn ci lool daj ci lu ne ba tey jii nga war a def sa cër nga taxaw di beru naan man wéet naa Seex Abdu Barham loolu wéet mbooloo maa ngi kay ci mbooloo mi ku wéet yaa sa bopp nee baa ngi nii ne gàññaay lépp luy bagage mu ngi nii yow nag boo ñu boo ne dugguma ci néeg bi loolu yaa xam kaay dugg ci néeg bi xam li bagage yi biir néeg bi mooy lan bu kenn ñàkk fayda seen bagage la yéen ko moom su nga lii wallaahi yéen a ma ci ëppale yéen a ma ci ëppale man aw ma ci dara kaay leen di jël seen bagage kenn ku nekk ak la na soxla kenn ku nekk ak la ngay jël ku ci wéet yaa wéetal sa bopp ku ci wéccu yaa ko teg sa bopp kenn ñàkk fay def foofu loolu wax ki may wax xam na boppam kenn la rek bu loolu jàllee bu loolu jàllee ñuy laaj addiya sëriñ bi vraiment sax ñii muqaddam yi nga xam ne sëriñ bi ñii laa tuddee gàmmu gi ñii muqaddam yi képp ku ko toog ñëpp ay muqaddam lay Euh, li tax ma tuddee leen ko classe bi sàngam gële damay joxe ñeneen waaw borom yëri bu mbula bi comme gis naa fi ñaari yëri yu mbula wala ñett borom yëri bu mbula bi laay wax moo tax tàntoon ca ca tànt ba teg ataay di naan te ñoo war a jëndoon jotaay bi buñ ne gàmmu tay ba sàng wala ñu ne gàmmu bi dina bàyyi nga imaam ñu ca kat di daan ataay waaw so su mel si baaxul bu ngay tàmm ci yéen tamit nga ne suukar si dinaan rek lii si kaw moo tax ma ne damaa bëgg jëmal bés bi gaa yi leen toog ci biir tànk bi jëmbal tànk bi moo tax ma tuddee leen ko ñoom ñëpp fan ngeen di dara taxul maa ngi leen di balawaat xam naa ne am na ñoo xam ne seen tànk yi topp na parce que xamuñ ko waaye maa ngi leen di balawaat bu baax lii mooy li war a xam mooy li war a nekk comme nag xas naa ko tudd ko xam leen ne lii mooy li continuer nekk leen ci lii waaw bu dee toog ci teg table la bu dee ci biir néeg bi ku ci mën a ku ci mën a toog ci suuf toogal ci kaw solal yére yu la neex solal sa mbaxana mu rafet toog ci kaw yàqu dara xol bi mooy sujjóot xol bi mooy sukku waaye du jëpp ci kon sëriñ bi lii moo tax mu tuddee leen bés bi ñu leen di gërëm bu baax a baax a baax bu loolu jàllee su daal ku may dalee léegi sama xol mooy ñaari junne buy buy angale jun junne junne anglais buy seebaa ñaari junne tànt bi yëpp laa bëgg ñu joxe ko bisimilah jox na la jox na ma junne anglais si Abdoulaye Faye jox na ma ñaari junne Serigne Talla yu naan ñaari junne Aliou Seck bàyyi ñaari junne Serigne Abdou Sane Serigne Imam Imam Ousmane Cissé ñaari junne Seydi Hamid Samb bu ñu la si jëloon ci dara si defoon ko yow ah Omar Wilane ñaari junne am Sall Fara Guèye ñaari junne Serigne Abdou Ndaw ñaari junne ah Baye Ndiaye ñaari junne Thierno Daouda ñaari junne Seydi Ahmad Ndaw ñaari junne Seydi Abdourahmane Wilane ñaari junne monsieur Alaaji Sow ñaari junne Cheikh Diop ñaari junne ah Babacar Ndaw ñaari junne Baye Babou Diagne ñaari junne Adama Sall ñaari junne Mod Boran ñaari junne Dame Sow ñaari junne Imam Modou Ndaw Modou Mbow Imam Modou Mbow Tawsan Dalasi Ndiago Mbow Tawsan Dalasi Saloum Wilane ñaari junne sar Ahmad Sinaan ñaari junne sar Taala Càll ñaari junne Seydi junne ah sar Babacar Caam ñaari junne Jallo Baay Wilaan ñaari junne Yaa Hawa Njaay ñaari junne yaa ndey jàng ñaari junne yaa ami baay ñaari junne yaa nabu càlla ñaari junne sëñ Barham Diouf ñaari Oustaz Baba Diaw ñaari junne Modou Ndaw ñaari junne ah Mag Mbay muy ñaari junne Cerno Ba ñaari junne Baye Diagne mi ànd ak Cheikh Baye di vingt pound mi ànd ak Cheikh Baye joxe leen junne Baye Toog ñaari junne Aliou Mbeng ñaari junne ah Mahamoud Ndaw Guy Mbaye ñaari junne ah Noorul Basar ñaari junne Baye Jama Birane ñaari junne Baye Diagne ñaari junne Baye Mor ñaari junne te sas ay Birane fii ñaari junne jërëjëf jërëjëf Pape Ndiaye ñaari junne bu joxe lii baax joxe ñaari junne yaa aw baay ñaari junne Seyda wilaan ñaari ñaari junne kan la sutura baax sutura baax ñaari junne ñaari junne Baraye Wilane Dakar mos na bàyyi Kaffrine ñaari junne Fatou Wilane ñaari junne sëñ Daouda Mbour junne Dalase Soxna Abdou Barham ñaari junne ah Ibrahima Siñaan ñaari ñaari junne Dalase Mariama Dia Taïba Niassène junne sëñ Alaaji Modou Thiam alkaali Fatou Thiamène junne Dalase Borom Diop Kanjour ñaari junne yaay Fatou Ndiaye Salaan ñaari junne Yata Baye Wilane ñaari junne Mama Asuba ñaari junne Chérif Wilane ñaari junne Samba junne dalasi wala ñaari junne junne dalasi jërëjëf ah Thierno Wilane joxe na Cheikh Abdoulaye na junne angale Baye Cheikh dama ah? ne junne ak yéen junne ñaari junne ren junne Oustaz Ibrahima Cissé ñaari junne ah Ndaw ñaari junne Baye Ñang junne ah junne CFA ak junne CFA ak junne anglais ah. ñaan day jaw joxe na ñaari junne Kabir Thiam joxe na junne darase Mouhamad Top Mouhamad Top ñaari junne Kabir ya ah ya Abi Wilane joxe na Mami Cissé joxe na junne darase Mami Cissé Koli joxe na junne darase Reis Omar Signane ñaari junne Ahmed Niass joxe na ñaari junne góor a toog joxe na ñaari junne aram ndaw junne aram ndaw joxe na ñaari junne du toog ah sëñ Abdou toog sëñ Abdou toog joxe na sa baay ah yow la baay Ibrahima Kébé joxe na ñaari junne Mouhamad Kébé ñaari junne Mbaye Abdou Barham Mbaye Abdou Barham ñaari junne déedéet maa ngi déedéet déedéet déedéet déedéet waaw jënd naa ko jënd naa ko ñaari junni jënd nangal naa la jënd naa ko waaye maa la ko jënd am kay am am am ka une maa ngi joxe ñaari junni incha allah xanaa ma man jox ma ñaari junni jox ma ñaari junni jox maa ngi jox maa ngi jox na ñëw ah sama jaawo ñaari junni ah ah Baye Alaaji Gueye ñaari junni dalasi junni dalasi déjà Sadji joxe na junne nawet ah Ousmane Sarr joxe na ñaari junne Mahmoud Camara joxe na junne Mariama Cissé joxe na junne suñu na xaalis bu bëri junne Abdullah Thiès joxe na ñaari junne Kadi Baye Wilane joxe na ñaari junne Baye Mariam joxe na junne galas Baye Siñaan ñaari junne Baye Diouf ah Serigne Diallo joxe na ñaari junne Saar Baye Diouf ñaari junne Saar Saar mooy joxe ñaari junne Saar Saar joxe na ñaari junne Seydou Adda Dodo joxe na ñaari junne galas Cheikh Mouhamadou Hadji Wilane dana junne dara Oustaz Baye Diouf Oustaz Baye Diouf ñaari junne dara Mame Sokhna Ndiaye jox na ñaari junne Seyda Maymouna Seck jox na ñaari junne jox na Wilane Italie ñaari junne Oustaz Baye Cheikh Diaw ñaari junne ah Seydi Wilane jox na ñaari junne ah Oustaz Thiam Medina Baye ñaari junne ah Cheikh Baye Wilane joxe na junne bàyyi ndaw ba gaynde ñaari junne ku joxe Babacar Kumba joxe na Corro ñaari junne yàlla Kani Soda joxe na junne Omar Baye joxe na Ibrahima Ndaw Ibrahima Ndaw joxe na ñaari junne Aïcha Niass joxe na junne Sas Keba Diop joxe na ñaari junne Mohamed Diallo joxe na ñaari junne Amad Idris Sidi Niass joxe na ñaari junne Baye Cissé Imam joxe na junne Aliou Ba joxe na ñaari junne Ndiaye Keba joxe na ñaari junne Ndiaye Keba Dieng Mansour Thiam jox nañu ci junne Sidna Omar Sow ñaari junne Sidna Fatou Top jox nañu ci junne ah Thierno Signal jox nañu ñaari junne. Noonu Signal. Noonu Signal jox nañu ñaari junne. ah Abdou Manka Sidna Mariama Ndiaye jox nañu junne. borom junne seebaa la ñëw borom junne seebaa la ñëw moom it ba dana ah Aliou Lo dana la junne dara continue jaw ah nday si dana la Baye Fatou Ndaw kenn la Julle ah Moussa Moussa Moussa Sow kenn la Julle Mara Souleymane kenn la Julle Ousmane Mbengue kenn la Julle ak lu topp Arab Salam kenn la Julle Baye Ka kenn la Julle ah yaa jaar Ndiaye ok